أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم barke borom Touba doole Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi tey ñoo ngi fas yéene waxtaane xasida gi wa kaana xaqan alayna nasrul muminina muy xasida goo xam ne daa bokk ci xasida yi sëriñ bi bindee gànnaar ci tukkib jéeri xasida gi sëriñ beegi ko bindoon ci atum 1905 1905 la ko sëriñ bi bindoon ca gànnaar loolu moo ngi dëppoon ak ama jaksasin ama jaksasin mooy 1323 moo ko bindoon ci weeru koor ci fukki fan yi mujj ci weeru kooru 1323 jàpp 1905 Cheikh Mamadou Lamine Diop Dagana nettali na xasida gi gi am ci bind gi ma ngay wax ca téeram ba mu tuddee alminahul miskiya fil xawaariqil mbakkiya di wax ne mbokkam mu mu ku ñuy dëgërlu ay waxam di Muhammad ibnu Abi Bakrin ibnu Ahmayid ad-Daymaani moo ko nettali ne ko moom najaayam moom Muhammad ibn Abubakar moomu nijaayam jooju du Cheikh Abdullahi ibn Ayyi dafa am mbooloo mu mu àndaloon ñu jógee woon xomaak wala ñu jëmoon xomaak ngir ziyaare ji sëñ Tuba loola ma nga dëppoo woon fukki fan yi mujj ci weeru koor ama jaksi sin muy 1323 dëppoo woon ak weeru novembre ci 1905 nee na biñ dëgmalee sëñ bi ndax yoon wi daa sori woon dañuy dox ay guddi nee na guddi gi nga xam e ne ñoo ngi nelaw tem leer leen ne suñu xëyee rek balaa guddee jotaat danañu àgg fa sëriñ bi nee na moom mu nelaw moom Abdullah ibnu Ayya moomu nee na moo nelaw gis ci ay gënte ne sëñ tubaa jël na arafi wa kana haqqan alayna nasrul muminin. gi suñu borom di wax ci alquran neena na sëñ tarif ci qasida go xamne xam jullit ñi la cay ñaanal neena bi mu yewo mu net li ñi mu andal gënte gi bi ñu ci sëñ tubaa fekk dañ doon sakku ci ci mom dimbal ndax boba Mauritanie doyna war lol ci ëppante doole bi ak colonisateur yi ak it ñiy karaate ak yu ñu demee booba daal Mauritanie ngi ci ay jafe-jafe ñu ñëw ci sëñ bi ngir sàkku ci moom génn ci jafe-jafe yooyu biñ ñëwee agsi ci sëñ Touba nee na ma nettali ko sama gént gi nee na fi saa si sëñ bi tontuñu tontuwuñu ñu toog leen ñu toog mu daal di jug génn dugg ci biir nee na yàggu fa dara indil ñu xasida gu tooy xepp ñu tënki ko wakkaana xaqan comme na ma ko génte nee mu leer mané digënté bi sëñ bi dugg ci biir néeg bi ba génnaat talifu qasida guttal ne wakana haqqan nga xamné 153 ay bayit la xaju ci nee leneen nit am moy bu ko la ta ñoo ñëw xasi degi du toy waye bimu ñu koy jox da ngi toy xep nga xamne bo laale mu taq la loolu di tani xasida gi ci mbindin mi ak nimu doya war nga xamne karama la mom qasida goo kana xaqan nga xamne ne qasida gi dong karama la wa kana xaqan sëriñ bi mo ngi ko talif talifin wu day war ndax danañuy wax sax ne wa kana xaqan la ko tenke wa wa kana xaqan alayna nasrul muminina bi baamu na ci ñetti yoon Sering bi baamu na ñett yoon wa kana haqqan alayna nasrul muminina xasida gi baamu na ci fastajaaba lahum rabbuhum ñaari yoon fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'maluna yaamaluna bi wax na ko ci manam teunk na ci aya bobu ben yoon bo tambale ñaar fukk ak bayt yu ñeek yi muy tàmbale qasida gi ba ci nafayta iblis li xayri abada fi shahri za wa kulla man lam yabuda lolu tunk bokkaan haqqan alayna nasr muminin la muy ben nga tambale na jeyta man bi taallaqu ma min shayatin fa shukre ismaa ba ca jaka abduka qadim abdika murtaja neelal munaamin indika loola tënkub wakaana haqqan alayna nasr mu'minin nga najjayta man bi taallaqu maa min ash-shayatin fa sukrees maa ba ci ak abduka khadim abdika ñaar fukk ak juromi bayit la nga jam tambale ci ak abduka khadim abdika moto to nel mo namina ndika ba ci lazina saidu bil khair lola. ñaar fukk ak jurom ñetti bayit la kon tënku bakana haqqan ñew na ci ñetti yoon kon wakana haqqan bo tambale ca tambale kay ga ba ca naajàkka abduka xadima abdika mortajee nelel munafiqin di kay yaa ngi am juróom ñaar fukki bayit ak juróom juróom ñaar fukki bayit ak juróom yooyu boo ko compté dafay jox ñetti vingt cinq ñetti vingt cinq yooyu vingt cinq bu ci nekk tënk bokkaan xaqan ala na nasru moom ne la kon dañuy wax ne ñetti xasida la ci sëñ bi tënkaale mënees na ko waxee noonu nga tàmbalee ci fasal zina saadu bil xayri ba aman la may saadu bi ba ci min nii lahu anfa alhamdin wa shukur zaqimat lil mustafa abdu shakur muy juróom fukk ak juróomi bayit suñ dañ ko tënkee fastajaaba lahum rabbuhum nga tàmbalee ci faaraxtu jumlatan min al mubaahi liman kafaaniye zawin nubaahi ba ci muhammadun salla alayhi bi salaam wasilati lahu wali qaadil kalaam muy fukk ak juróomi bayit suñ dañ ko tënkee it fastajaaba lahum rabbuhum comme fastajaaba lahum rabbuhum ñëw na ci ñaari yoon cib tënk nga tàmbalee ci فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني قل وحب وقديم بتجيغ أنت لو قصيدة جنا جاك عبدك abdul عبدك القديم مزا سلام مسلما على مزا زي قلا muy ngeen fukki bet ak juroom ñet lolé señ ben ko tenki aya fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati a'yun jazan bima kanu ya'malun kon qasida gi qasida gu yeme la qasida go xamne dañu nan wakaana xaqan waaye li mu tënk ci aya alquran uppuna na wakaana nga xamne ñet aya la tënk wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin fastajaaba lahum rabbuhum falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bimaa kaanu kon xasida gi xasida gu doy waar la incha allah ci jotaay yi di ñëw ñu gën a faram fàcce bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul fàtte abonné bul